bëgg sëñ Moustapha Sy lu war la ci ñun jaam ñi liggéey na ci yoonu lislaam sëriñ na la déglul sama way ma way ko doomi wàlliyu bi mooy baayu capitaine bi sëriñ Seex ngërëm na la bu sa di si Noso pininga toge iyan bila iyalayane ang koya no tayo ulo kende dujur mu ze ay walay gamako musta sidil wal musta sidate nan yukel sing mustafa mu sering se bagi sing mustafa si luar lacing jamin liggéey na ci yoonu lislaam sëriñ Seex ngërëm na la déglul sama way ma way ko doomi wàlliyu mooy baayu capitaine bi sëriñ Seex ngërëm na la bu sa baay di si waatoon doo ni nga tooge yan bi la yàlla yane danga ko yanu tayewu loo gaynde du jur muuse والله والله gëmmaako mustasidiin wal mustasidaat nan jukkal sëñ Moustapha moom